convention bi am na solo lool euh, ñu ngi yaakaar tamit moo gën a dooleel liggéeyu ndimbali ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole bi nga xam ne ñu ngi ko def ay ati yàlla ngi nii euh, su ma la joxee exemple ñoom ñu ngi liggéey Sénégal depuis vingt cinq ans ñoom bi ñëwee ci fi lañ ci la ñu fekk ñun euh, boobu ba léegi ñu ngi dimbalante gis nañ ne dimbal dimbalante googu war nañ ko gën a nose ci loolu la ñu wax nag nañ suñu benn protocole d'accord boo xam ne bi ne cadré ndimbalante dimbalante googu jàppalante googu mooy ñu xam ne que année bi lii ak lii ak lii war a def lii région bi lii la jëm région bi lii lii lii la lii lii la soxla lii lii la soxla ci xaalis bu boobaa ñu planifié ko comme que ñoom amuñu loxo yu doy ndax man dem fépp nekk fépp. booba bokk nga ñun waa réew mi nañu foo dem ci biir réew mi am na ñu ñu fa taxawal wala ñu ñu fa am mën nañ fa am ñu ñu fa taxawal ñu daal di yónnee ci ñooñu wala jël ci ñooñu ñoo xam mën nañ taxawee liggéey boobu fekk ñu koy saytu ginnaaw loolu ñu jébbal leen liggéey bi te fekk ñoom noonu nañ ko tëralee woon loolu benn benn wàll bi la waaye beneen wàll bi tamit mooy eh, liggéeyu li ñu tuddee humanitaire ci biir réew mi dafa gën a soxla ñu gën koo nose moo ci wàllu formation jàpp nañu tamit ñi nga xam ne ñoo ci liggéey amuñu léeg am na lu dañuy dese euh, yenn xarala yi yenn xam-xam yi yenn euh, gëstu yi ak yooyu loolu tamit daañu ci liggéey fexe ba nga xam ne daañu def ay forum yoo xam ni ne euh, wala ay séminaire yoo xam ni dañ cee former ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu humanitaire ba nga seen liggéey dana gën a gaaw waaye tamit dana gën a am jeexital ci nit ñi. parce que li gën a jafe ci do ci àddina si bokk na ci liggéey ak doomu aadama boo xam ne mi ne xamul foo jóge xamul foo jëm xamul li nga bëgg ci moom. kon loolu dafay laaj euh, ay xalaat ñu tëral ko ba nga xam ne jokkoo ak nit ñi liggéeyal leen jàppale leen day gën yomb ak li ñu ko def def bu njëkk su ma joxee exemple léeg-léeg nga dem ci benn dëkk di leen defal dara euh, ngeen ñàkk déggoo dara waralu ko mooy yow soo xamoon noo ñëwee ci ñoom euh, mën na am yooyu du am wala jamono bi nga ñëw ci ñoom loolu du am wala li ngay indi ci ñoom loolu du am kon yooyu yëpp la bëgg tamit suñu ko boolee moom la ñu nos def ko ci benn kayit bind ko euh, tey signé ko incha allah war ko def léegi nag ay pàcc pacc faram-fàcce ko ci kanam tuuti ñu tàmbali liggéey bu soob yàlla waaye loolu tekkiwu tey leen tàmbali jàppalante même tabaski bi passé jàppalante nañu ci liggéey boo xam ne bi am na solo ci biir réew mi fii ba Casamance fii ba Tambacounda ba ba Kédougou fii ba Fouta fii ba Saint-Louis ak yeneen ak yeneen. léegi partenariat euh, secteur am na secteur yi nga xam ne li ñuy tuddee secteur. Euh, secondaire am na secteur boo xam ne euh, centrale la donc li nga xam lépp li jëm ci njàng ak euh, xarala mooy tàggat nit ki ba mu man am xarala bu muy dundee loolu ñun lu jiitu la parce que nit ki loo ko defal loo ko dimbali su fekkente ne fexe ba mu mënal boppam des na donc loolu moo ci jiitu d'abord ci wàllu njàngale ak formation moo ci jiitu ñaareel bi mooy nit ki soo déggee muy def dara daf fekk mu am wér yaram moo tax wérgu yaram tamit dañ ko cee taftale mu nekk mu bocc ñetteel bi mooy soo demee ci biir àll gi tey ñun réew mi li ko yore mooy mbéy ak sàmm léeg-léeg sàmmkat yi wala léeg-léeg yi du am ndox kon tamit fexe ba ndox tamit euh, yomb béykat yi ak sàmmkat yi tamit loolu ci la bokk waaye dafa am beneen euh, couche boo xam ne bi ne dañ koy faral sàgganee suñ ko sàgganee di indi ay jàngoro ci biir réew mi mooy xale yu ndaw yi nga xam ne seen way jur dafa génn àddina mu li tuddee ay jirim ñoo tamit fexe ba jël leen en charge te loolu duñ ko jël cëral lool jël ko en charge jàppale leen tette leen jàngal leen former leen jox leen ay métier suñuy génne bu suba du ñu warawanke benn bi ñu nekkee xale waaye suñuy màggee tamit mën nañ njëriñu réew mi tamit loolu ci ci ci la bokk tamit waaye benn bi mooy léeg-léeg ñaan ko yàlla waaye léeg-léeg dafa am ay jafe-jafe yu am catastrophe dana am léeg-léeg léeg-léeg covid bi mu ne ñu mu ñëwee mel noonu donc loolu tamit dafay laaj ñu jóg léegi léegi am lu ñu def loolu tamit euh, protocole d'accord bi tamit dana ci dem incha allahu taala waaye yeneen xeetu dimbalante mën na am comme ni ko waxee sànq ci wàllu formation ci yeneen ak yeneen ak yeneen. wax nga secteur yu bëri bokk na ci secteur éducation euh, ñëpp gis nañ ni mim réew ku ne day xëy rek léeg mu ubbi école am ne day jàngale yooyu ba ba tax na jàngale bi day xaw a sooxee quelque part ban yan jéego ngeen fas yéene def yéen ci seen kuréel bi pour que loolu ngeen andi si saafara. loolu tàmbali na ñu cee ñu bokk ci ñu ko sos ci la ñu bokk mooy benn kuréel boo xam ne bi ne dafa boole nguur gi boole jàngalekatu daara yi boole ñu nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu jàngale ak wàllu yar loolu juróom-ñaari at la juróom-ñetti at ñu ngi ciy liggéey fi mu nekk ni mën naa wax ne am nañu benn projet du loi bu pare li des ak mu dem assemblée ñu voté ko loolu nag suñ ko voté ba pare jàngur yooyu yëpp dañu saafaru parce que bu boobaa du ko mu neex ubbi du fa neex ubbi daara bu boobaa dañuy see xayma sa xam-xam ak xarala ndax yow mën nga ubbi daara benn ñaareel bi programme bi ngay jàngale tamit foofu ñu saytu ko ñu jox la ko ñu seet ndax yaa ngi koy doxal yaa ngi koy yaa euh, ñetteel bi tamit mooy daara ji su demee ba taxaw bu fekkente ne mu ngi dox jaar yoon bu boobaa nguur gi dana jël ci xaalisu réew mi di ko dimbale daara ji ni mu koy defee yeneen école yi waaye condition suñ ko defee mu am jeexatal